fuustu la daa galwaa wa inda ba afali ma bihi waniiru kulla ma afali ci biir wax jayit junjee ci bay wax ne nawaytu shukrahu la daa daari salaam wa inda tuubaaya bi jismin wa xilaam nawaytu shukrahu bi fardin sunan indahuma wa inda daaratil minan kon bi junjoon na ne màggal gi daa dem ba Tuubaa ak daaru xuloos ak daaru minam lépp xëttaloo di benn dëkk ñu dee ko fa màggal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 màggal gi saa su fukk fan ak juróom-ñett accès natt bu ko ma a teg rek bu déllu siwaatee danañ boole mboolem natt bu ñu ko mos a teg tegaat ko sëriñ te nattu yaay li muy li muy tar ni ko ñëpp di yége ne ko yége lu weesu buy agsi rek rasulullah sallallahu alayhi wasallam dana ko xamal ko nattu bi agsi na noonu la Serigne Touba nekkee moom juróom-ñetti at yu manqué tuuti yami nekk ca Gabon ba ñibbisi Touba ba dem gànnaar juróomi at yam fa am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 ginnaaw ak Cheikh Mouhamadou moom ba ci ak Cheikh Sidi Moukhtar mi fi mujj ci ay xalifa bi ñu fi bàyyi noonu rek ak Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi gën a yàgg loolu te wuutu leen ca di ko woote am nga jot di ko ànd wala nga kon li ci ëpp solo rek mooy gën a farluwaat takkaat suñu laxasaay te ngeen a toppaat ci ginnaaw Cheikh Mamadou Mountakha mi fi Serigne Touba am na Serigne Touba képp ku fi teg rek moo demal sëkk jotaay bi loolu dafa bokk ci lim fàggu ci biir moom lii nag yàlla dafa ne muy yëngu joo xam ne ñëpp ko xam tolloo naa ni doomu aadama la Serigne Touba waxoon rek lu yàlla moytu rasul lu yàlla moytu boppam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 rasulullahi tere bàyyi Serigne Touba ñëw yeesal ko nit ñi bàyyi man Abdul bu moo ko teree nit ñi laqatu biir kër yi di ko def kon loolu doy na ma ci sëkk yi Saliou Mbacké itam dégg ngeen ba tàyyi muy Cheikh Abdou Khadir Mbacké it noonu foo ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké bàyyoon mu wóyal ko bi dikkee dégg ngeen fàttali mu ba tàyyi bis xëy jël na di soobu mag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 bokk na ci seen programme tëli yi yàqu yëpp danañ ko defaraat am na ci yoo xam ne nag dañoo xool ba xam ne ko liggéey nit ñi dana jafe ci moom mooy juróom bu diggante kër Cheikh Mouhamadou Fadil ak kër Cheikh Abdoul Ahad ak juróom bu kër Cheikh sëñ ba dem ba kër sëñ bi fa am sëñ yoon yooyu xam ngeen ne dafa bokk ci mbedd yi gën a jege jumaa yi te gis ngeen nan mel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 Serigne Touba nee na ñaar buñ dendee kër kii di ko màggal kii di ko ñàkk màggal ka koy màggal waxtu ne muy gis la ko kee tiime Cheikh Abdou Khadim Mbacké daan net ne Cheikh Mamadou Moustapha moo ko ne Serigne Touba de nee na moom àjjana ay bis amu waaye bu ñu demee ba ëllëg képp koo xam ne yaa yaa ngi naan màggal sama bis bi bis ba mu daa jot ci adduna bu agsiwaatee